mbokki jëlit yi fi teew mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu euh, di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadunil Muntaxa di ko ñaanal sama boroom defal ko fan wu gudd wu ànd ak wér ba lim am yéene liggéeyal maamam Cheikhul Xadimi mu def ci lu kawe jortam di ñaanal bu baax itam suñu sëriñ suñu kilifa bopp gi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njabootu Cheikh Massamba Kanni Bousso muy alhaaji sëriñ Fàllu Bousso di ko ñaanal moom itam sama borom sàmm ko aar ko defal ko fan wu gudd wu ànd ak wér te barkeel ba lim am yéene liggéeyal maamam ma sàmb Kanni ci liggéey bi mu ko fi bàyyil ak ci ndono li mu def ci lu kawe njortam ak njortul képp ku mu ko doon àndal te ñun ñëpp it ñu ànd ko ak moom ci barkeb Cheikhul Khadim di nuyu bu baax ak ziyaara kilifa yi nga xam ne ñi ngi fi teew bari na kilifa yu fi ñëw waaye mel na ne bu ñu tuddee sëriñ Fallou mbakke mii moom Alaaji Baara fàddilu dana mën a yóbbaale kilifa yi jot a ñëw te dem ak yi nga xam ne xëy na xalsal nanoo ñëw ci gannaawam kàddu gi ñuy yëkkati nag dañ koy yëkkati ci turu sëriñ fàllu mii muy ndigal luñ ñu jox ñu war koo jëfe donte ne tuuti nañ ci lool waaye njort nañ ni bëgg noo dimbali moo tax ñu def loonu ko kon day mel ni mën nañ cee jariñoo ca la sëriñ bu mag bi doon wax te waxoon ko sëñ ma bànji njaay ne ko diggante murit bu nekk ci ndigal ak bi nekkul ci ndigal li leen wuutale ñaar kepp la murit bi nga xam ne dafa nekk ci ndigal mooy mi ngi mel ne gàtt maanaam am xar gàtt boo xam ne dañ koo teg ci loxol sardi ba koy sàmm saa bu xëyee sardi bi dana wut fu ak ñax gën a naate mu sàmm ko fa gàtt booba li fi yëg ma ngi ca loxoy sardi booba te sardi boobu di taxaw taxawaayu ndigal ci moom du mas a gis lu koy gaañ ndax lu ko nar a lor sardi ba dana dox digganteem ak moom taalibe bi nga xam ne nag dafa nekk ci lu dul ndigal mi ngi mel ne gàtt buñ teg ci loxoy ab sardi ngir mu di ko sàmm mu xëy ne fa yaax sardi ba di wuti xur wu gën a naat ngir sàmm fa boppam su boobaa mën na faa taseeg lu ko ëpp doole lu ñu sàmmul ne moom te du gis lu dox seen diggante su boobaa kon lii mën na noo dimbali ci lépp loo xam ne mën na noo jural lu nuru loraange donte ne njortuñ ne mën na cee am ngir ndigal liñ ciy jëfe dox suñu diggante ak loola muy dëppoo ak li sëriñ bu mag bi doon wax naan laa tafaalu shay'an bi ghairi isni fan idnu shartun fi qabuli sha'ni kon ndigal loolu lañuy ñuy boole ko itam ak lenn ci ndigal li nga xam ne njabootuk sëñ Masamba Kanni def loo nañ ñu ko muy yëkkati waale kàddu ci turu mboolem sëñ duma ko jéem tënk ngir ne jataay bi yàgg na ci kilifa yi te ñu bare bëgg guddi bari war nañoo yeewi ko dellu ca yitte ya li ñu koy tënkee nag mooy sant mbooloo mépp ci turu Alaaji Fàllu Buso mi cant gi itam mi ngi koy tàmbalee ci bokki boppam yi nga xam ne fan yi yëpp ñu ngi fi ñëw ko dem ay rakkam ñu dem fa Cheikh Mouhamadul Muntaha dafa joxe ndigal ci bis bi ne lépp luñ ci daan def nañ ko yokk loolu nag jëmmalaat na ko ci dénkaaneel Serigne Touba li nga xam ne bàyyi woon na ko fi te sëñ Mbàkke Buso bindoon ko sëñ bu mag bi bi mu fi dem bi muy dem li mu fi dénkaane yatt képp la yoo xam ne bëggoon na koo defal boppam te dénk ko njaboot gi benn ba mooy demoonu màkkaam gii te damay faral di wax ne ñàkkaa demoon màkkaam doo nga gën ndax ku toog fii di wan say taalibe rasulullahi sallallahu alayhi wa di sëñ Masamba Kanni mii kooko boo demoon madinatul munawwara ca kanamu rasulullahi mënees na faa gis lu xotti baax loo xam ne boo fa jugee day lu baree bari mën naa num tuddati yenn yi suñuy teggin du ñu may ñu di ca yegg waaye am na lu mën a jur moo tax ak ñàkk a demam doo nga baax kon loolu mu dénkoon ko njaboot gi te maam yi suñ fàllu mi yeggaleel ko ko ànd ko suñ mbàkke bu soob maam Cheikh Anta beneen ba ca topp muy jumaam ji mu dénkoon ko njaboot gi ñetteel ba mu nekk daara joo xam ne nit ñi dañuy jóge fu ne ci réew mi di fa ñëw di fa sàkku see xam-xam ñetteel ndénkaan boobu nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa sama borom dogal na defal na ko ci tawféex ci mbaaxu sëriñ bi ba mu taxawal ko ba ñu war koo di ubbi yàlla nañ suñu borom yóbboog jàmm te yéene ak yi mu ci am yépp suñu borom sottalal ko ko kon sëriñ bi jant gi ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa la ko njëkkee sant itam sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne la yàlla teg ci bopp njabootuk sëriñ mu jiite itam njabootuk sëriñ Masamba Kanni gi ndax sëriñ Fàllu mi sëriñ Cheikh mooy kilifaam te kër sëñ kan ni ku fi nekkal sëriñ Abdul Xaadir yaa ko yilif moo tax sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir léegi la fi jógee gis ngeen ko moom tam ñi ngi koy ñaanal ci taxawaay yi jiitu ak yi nga xam ne am na ko ci bis bi ak yi nga xam ne nar na koo am ci li nar a ñëw ñu ngi koy ñaanal moom tam ak mboolem njabootuk sëriñ Abdul Xaadir yépp sëriñ Sidi ñëw na fi tey jii euh, mboolem njabootuk sëriñ Abdul Xaadir gi ñi ñëwut ak ñi nga xam ne xëy na ngàntul génn dëkk bi moo tax ñëwuñu te ñu daan ñëw ku ci mel ne Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëñ Abdul Xaadir daana ñëw ci bis bi daa ci taxaw taxawaay yu am solo nekk ci ndigalul sëriñ bi génn dëkk bi moo tax gisee fu ko fi kon moom itam ak njaboot gépp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom taxaw leen bu baax a baax sëriñ bi mi ngi sant itam bokkam yépp yi mu bokkal sëriñ Touba ak mboolem ñi mu bokkal lislaam jàpp naa ne ñaar ñooñu ma tudd muy Cheikh Mouhamadou Mountakha mi jiite murid yépp ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir mi jiite kër sëriñ Abdul gépp bu ñu leen tuddee dana doy sëkk ci mbokk yi fi ñëw muy mbokki Mbàkke yi ak mbokki Mbusoobe yi ngir ñu mën a yóbbaale euh, cantu mbooleem koo xam ne teew na fi wala mu yëglu si wala mu amoon yéene teew te teewul sëriñ bi sant na leen gërëm leen ñetteelu cant gi itam sëriñ bi mi ngi koy sant njaboot gi njaboot gi nag su ma ko waxee maa ngi ci jublu euh, ñi nga xam ne ak jaayante da leen a boole kër gi waaye ñi nga xam ne deret leen a boole kër gi ndax sëriñ ma Massamba Kanni yàlla def na ni ñi ko ñi ko séq muy nun ñii ñu jàpp ne ñooy sëti ma Massamba Kanni ay taalibe sëriñ Massamba Kanni lañ ñun ak ñi nga xam ne jaayante leen boole ci kër gi te seeni maam Serigne Touba boole woon leen ak sëñ Massamba Kanni kóllëre googu ñu di ko sàmm ba tey ñun ak ñoom ñooyam ci sëñ Massamba Kanni ay taalibe rek lañ fi ñu fi itam lu ëpp ay taalibe kon sëriñ bi bu ma nee njaboot gi sëriñ bi dugal na ci ñëpp muy ñi nga xam ne ay sët lañ ak ñi nga xam ne ñoom jaayante ay njabootu pas-pas lañ ci kër gi ñoom ñëpp ñoo bokk benn taxawaay bu ñu am sëriñ bi bu mu jàppee bis bii jël ndigal ci sëriñ Muntaxa booba ak tey jii buñ koy xool ci fukki fan dong la tool waaye ci biir fukki fan yi ci biir fukki fan yooyu góor góorgóorlu nañ ci boole suñuy doole boole suñuy xalaat boole suñuy xam-xam ànd koog daayira bi muy suñu maam góor cuub ñoom ñi ba liñ bëggoon ci bis bi yéene jiñ ci doon xaar ak naal wiñ ci amoon am nañ ci lu kawe suñ jot ndax xam ngeen ne waajal ab bis ci lu yées fukki fan mu mel nii daaroon xaddim mel tey ku ne xam ne ne loolu liggéeyub suñ Masamba Kanni la loolu nag fi ma ciy daaneele ci wàll googu mooy nu gën a góor góorluwaat gën a feddali sunuy laxasaay ci liggéeyal sëñ Massamba Kanni sëriñ bi mi ngi sant sëriñ Mourtada moom sëriñ Fallu teew na fi tey jii uh, ànd ak uh, sëriñ Baye sëriñ Bousso bi Bousso ak délégation bu am solo teewal fi itam njabootuk sëriñ Fallu gépp sëriñ bi itam mi ngi sant sëriñ Amsa moom sëriñ Souhaïbou démb rek maa ngi koy waxtaani ak sama gaañ yi mu am taxawaay yu am solo yoo xam ne yàgg na koo taxaw ci bis bi yàgg koo taxaw ci liggéeyub sëñ Massamba Kanni bi te taxawaay boo xam ne sans bi la ñi ngi koy sant bu baax ci turu sëriñ bi te di ko ñaanal asadul xadimi li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ci xasida yi mu def ci lu kawe njortam kon daal nanu gën a góorluwaat bu baax te gën a xam ne euh, kenn ku nekk ci ñi àndoon ak sëñ Touba seddu nga waaye nag amu ci kenn koo xam ne jàpp naa ne sëñ Massamba Kanni bëggoon naa mel ni yow ndax li ko sëñ tubaa defar njëkk sëñ tubaa di dem ci géej gi li may faral di wax man ngaa gis ku ne sëñ tubaa bind la ne la sama xarit nga waaye ginnaaw géej gi moom sëñ tubaa leneen la woon loo xam ne dafa ëppoon sëriñ bi ginnaaw géej googu nag kenn lañ ci gis mu bind mu bind ko ab xasida di ko ca soññ di ko ca wooyee sama xarit muy sëñ Masamba Kanni mii ku dem ci majmuwa bi da nga ko ci fekk bi sëñ Abdou Lahad Mbacké dajale ma nga ko cay wax naan xillil kanini yu man xad qiila inna lahu jazban ilallahi xatta qalbuhu bahara haza wa yaa xillu kun bil amri mumtasilan wala tazal an nawahillahi munzajira loolu sëriñ Touba moo ko wax sëriñ ma Masamba Kanni kon li may daaneele sama kàddu rek te jox sëriñ bi mu def ñaan yeewi mbooloo mi mooy sëriñ bi mu ngi sant bu baax jëwriñ Yuusu Jóob mi nga xam ni mooy jëwriñi daayira Hizbut Tarqiyyah diggante daayira Hizbut Tarqiyyah nag ak kër gi itam kóllëre gu yàgg la kóllëre la goo xam ni bi ñu njëkkee ñëw Touba suñ Ahmadou Maram way juru suñ Moustapha mii nettali na ma ne ma 7 heures du matin la suñ Abdou Lahad yabal jëwrin Ato Diagne mu ñëw ca kër ga ba mu ñëwee suñ Abdou boole leen ak suñ Dame Bousso Maram mu dalal leen fii ñu nekk tey muy tuddoon Daaru Naim nga xam ne fu suñ Masamba Kan ni gor la ba yegg si fii ci Daarul Xaddim kon day mel ni ndigal la ko Serigne Touba joxoon jëfe na ko kon diggante daayira isbu tarxiya ci njiital jëwriñ Yuusu Jóob diggante boobu ak kër sëñ Masamba Kanni ak njabootuk ma Masamba Kanni lu yàgg la ñi ngi koy sant bu baax ci turu sëriñ bi di ko gërëm ñëw na fi tey jii ànd ak délégation indi fi xéewal yu yaatoo yaatu ñi ngi ziar bu baax sëriñ Abdourahmane Ñang mi nga xam ne moo fi génn léegi moom itam yàgg na ci jotaay bi macha allah te at mu jot itam noonu la koy defee kon daal mënee suta tuddandoo ñëpp waaye li ma waxoon léegi presse bi ñu ngi leen di sant Rafa TV ak euh, Tawfekh Production ak Jant bi FM ci ñu ngi koy def direct ci njiital suñ góor a Njaay ndaanaan mi ngi nii toog kon presse bi yëpp ñu ngi leen di sant ñoom tam ci suba ba léegi ñu ngi fi di jël ay éléments di jël ay video ay témoignages lépp jël nañ ko ci dëkk bi kon fi may daaneele sama kàddu mooy li taxoon suñ maam góor doon wax léegi te taxoon suñ Masamba Kan ni Sëriñ Tuubaa yabal ko ci dëkk bi sëñ Masamba ni sëñ Masamba ni bi muy ñëw ci dëkk bi la ko indi woon fii 1913 la woon aw jiwu la dajale dugub joo xam ne da ko waroon a faraasu dem ci sëñ bu mag bi yët ko ko ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma ci ndax damaa war a tàmbali nawet bi sëñ bu mag bi laaj ko Masamba ren foo yëngoo ak fere yi mu ne ko ren de damaa bëggoon a dem naawel wéttaliwaale soxna asawaalo sëñ bi ne ko waa loolu de baax na waaye nag damaa bëgg nga xam ne sama dëkk bee di Touba am fa ku amee am fa ab dërëm moo ma gënal am junni junni boo xam ne feneen fu dul Tuubaa nga ko amee daan ne ko damaa bëgg nga dem wool ma sëñ Fallu wool ma sëñ Modou Moustapha wool ma sëñ Masamba Mbàkke sëñ Masamba Kanni woo leen ñu ñëw sëñ Tuubaa jox ndigal sëñ Fallu mu sanc Ndindi sëñ Modou Moustapha sanc Tindoodi sëñ Masamba Mbàkke sanc Daarul Karim gii sëñ Masamba Kanni sanc Daarul Xaddim gii sëñ bi ne leen na ngeen fa nekk damaa bëgg ngeen dëkk fa te bu sama jumaa ji noppee ngeen julli si ci sama jumaa ji ndindi moom foog naa looloo tax ba léegi jumaa amagu fa ndax ndigal loolu la ñuy topp ba tey jii mooy di jullisee ci jumaay Serigne Touba ji kon ndigal loolu sëriñ bi joxe woon ba mu ko joxee sëñ ma sàmba yi ba mu sañcee dëkk bii da koo taalifi ak xasiida goo xam ne daarul xaddiim la ko tënkee dell ji mu def ci bayit ba ca miim gu mujj ga daani rajaa yi li baaxin xaddiim karimin mujibin muridal xaddiim def na ko bayit wu nekk ci dell ja alif ja ba ca miim gu mujj ga bayit wu ci nekk wala araf wu ci nekk mu def ci aw bayit ba daarul xadim ji jeex loolu ngir jëfe woon ndigalul sëriñ Touba woon kon ndigal moo ko indi woon fii te moo ko fi bàyyi itam moo fi bàyyi itam ak njabootam kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy kilifay dëkk bi muy autorité yi forage bi li muy am jafe-jafe bari na ay weer a ngi nii yoo xam ne ndox amu fi dëkk bi dañuy am jafe-jafey ndox dëkk bi dañuy am jafe-jafey courant bari na ay sancaane yoo xam ne yi fi am ëpp na ñaari junniy buntu kër te ba tey jii may wax ak yéen dañuy am jafe-jafe ndox di am jafe-jafe courant di am jafe-jafe bërëbu fajukaay loolu ñaanoon nañ ko Touba ca kanam jokkoo woon naa ci ak ñoom ngir poste de santé yi ñuy maye ñu man ñu cee may benn fii ndax fii mu nekk centre wu na ba noppi mbooloo mi bari nañ dëkk bi yaatu na te ku fi bëgg a fajoo yaa ngay dem ba ca poste de santé bële ca isbu tarxiya ya mooy poste de santé Serigne Massamba Kanni boobee bokk ci juróomi poste yi nga xam ne Serigne Saliou moo ko fi tabaxoon te benn bu ci nekk ba mu noppee mu teg ñu teg ko ci loxo yi ka goroon dëkk booba ñu jël njaboot ga teg jël poste de santé ba teg ko ci seeni loxo loolu moo indi poste de santé booba nekk ci loxo yi njabootu ma Masamba Kanni ñu tuddee ko poste de santé bi Sëriñ Masamba Kanni mu mel ne nag kon dëkk bi mel na ne li ñuy faral di jàmbat ci lu mel nii ci bis bu mel nii bëriwut foog naa bu masee am tey lay masa doon waaye nag ñi ngi ciy ñaan bu fekkente ne mën nañu cee dimbali ñu dimbali ñu ci ndax itam ab dëkk buñ la ko dénkee te la tax ñu dénk la ko mooy bokk moomeel gi ñëpp mënta taxaw defarandoo ko seen bopp loo cay def danga da nga war a tëdd njaaxaanaay waaye jàpp ne ab dëkk itam dénk nañ la ko ab maire yi dénk nañ la ko ñu dénk la ko amoo lenn loo cay def loo xam ne di wax ne ku jàpp ne maire bi liggéeyut mooy da ngaa amut màggal kon yow jàpp nga ne màggal moo la fi bàyyi mu mel ne nag li gën a tuuti ci li la fi bàyyi màggal du màggal éclairage public dañ koo soxla santé dañ koo soxla éducation dañ koo soxla jafe-jafe yi dëkk bi bari na kon ñi ngi koy jooytu kilifa yi ngir ñu dimbali ñu ci te xam ne fii dëkkub sëriñ Touba daarul xaddiim la tudd borom bi mu ko sancee sëriñ bu mag bi moo ko jox tur mu tuddee ko daarul xaddiim kër sëriñ Touba luñ fi def ci lu baax sëriñ Touba lañ ko defal ñu fi romb defi ko feneen mbaa ñu ñàkk ko fee defi nañ xam ne alali sëriñ Touba lañ fi romb dem defi ko feneen amul fenn fu ko gën a yeyoo bu dee ci surtout tous les plans laay wax na bu dee sur le plan démographique daaru xaddim yeyoo na sécurité yeyoo na santé yeyoo na éducation yeyoo na lépp sur le plan démographique sur le plan de développement itam bëgg nañ mu dem fa sore sore am na ci lool nag waa dëkk bi mënaluñ ko seen bopp ndax dëkk bi dafa am natt goo xam ne dañ leen koy nattal muy commune bu nekk ci réew mi natt commune bu ci nekk Touba gii di commune bu tuubaa am 4 milliards yoo xam ne Daaru Xaddim daf cee bokk mosuñu jéggi suñ bopp nag ñu ngi koy joytu ren te di xaar fi ak déwén ba xam bu fekkente ne dimbale nañ ñu ci xayrun bu ñu ci dimbaliwutee su boobaa ñun lu ñu ci man ñu jéemal ko suñu bopp bu boobaa nag buñ bëggee dox suñu digganteeg la ñuy jéemal suñu bopp danañ tafee ak ñun loolu rek la kon euh, ñi ngi sant ñëpp te di leen gërëm di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi bu fekkee wax naa fi loo xam ne mëtutoon a wax mbaam a wax fi loo xam ne dafa ëpp a wax njaboot gi daal nanu góor lu gën a boole suñuy doole gën a boole suñuy xalaat gën a boole suñuy pexe ndax suñ fàllu dadaa wax ni aljamaatu rahmatun di xaddisu yonente bi suñ fàllu bu ko daan firi dadaa wax ni aljamaatu mbooloo rahmatun luñ songu daan ko kër sëñ Masamba Kanni gi njaboot gi yàpp na ci wàll yëpp buñ boolee suñuy doole boolee suñuy xalaat ak suñuy pexe duñu xaar dara sax ci mairie ñu xaar dara ci ci ci kenn duñu xaar dara ci état duñu xaar dara ci kenn lu ñu bëgg dinañ ko defal suñ bopp sañ ci dëkk bi gor ko moo gën a jafe foofu ñu fi bëgg muy ab poste de santé sëñ Masamba Kanni ba mu fi nekk mbooloo mii fi nekk nii ci dëkk bi nekk fi ci kër gi bi fi sëñ Masamba Kanni di nekk mbooloo mi toll doon noonu te gor na bi jom ak fullaak fayda ak bëgg sëñ Tuubaa doo nga taxoon nag li mu ci def lépp mu def ko mën a gor asalem fii gor feneen ak feneen loolu jomi sëñ Masamba Kanni la ak pasteefam bu ñu royee ci pasteef boobu ak jom jooju bu duñ xaar sax état wala ñuy xaarut mairie wala ñuy xaar kenn mënu ci defal dara ñun lu ñu bëgg mën nañ ko defal suñu bopp buñ doon def weer wu dee ku ne ñaar téeméer wala ku ne ñeenti téeméer wala lu waaye am def ci léegi tey ñu tabax suñu poste de santé fii léegi tey ñu defar suñuy éclairage public léegi tey ñu defar lu ñu bëgg defar loolu nag maa ngi leen koy bàyyee bu li bu tey weesoo ñu mën cee suñu bopp ndax di jooytu sa soxla ci koo xam ne amoo ca yaakaar te loolu suñu Abdou daana ko wax kilifa gu war ngaa moytu yilif aw nit ñu am seen soxla xelam jël la loolu kilifa gu nekk war na koo moytu te jiite ville bu tuubaa nit ñi di am seen soxla ci dëkk bi di daaru xadim seenum xel di la jël fii jafe-jafe du fi am ba kenn xalaat mairie bu Touba parce que mosuñu leen a gis mosuñu ñoo defal dara ginnaaw nag demee na noonu ñun li ñu war a defal suñ bopp nañ ko waajal te ñu defal ko suñ bopp luñ ci war a dox danañ ko dox luñ ci war a wax danañ ko wax ba liñ ci bëgg ñu amal ko suñ bopp te duñ ci xaar kenn loolu na leer bis bisu tey kon sant nañ ñëpp gërëm leen ci turu sëriñ bi bëggumaa guddal wax ji bëggumaa itam téye kilifa yi ci sama kàddu yu ñàkk solo yi waaye sëñ kër Mbuub mi ngi mi ngi yëgle nii am na benn journal bu am solo mi ngi nii tudd les migrants am na itam rajo boo xam ne ubbi nañ ko moom mooy directeur bi di rakk ci taala Mbuub mi nga xam ne ci njabootu kër gi lañ bokk moom moo ko jiite rajo bi mi ngi nekk Jurbel fréquence bi di 102 point 4 102 point 4 moom sëñ Babacar Mbuub mi ngi nii moo bind Euh, magazine bi di les migrants mi ngi bindaat itam beneen boo xam ne bind na ci ci sëñ Massamba Kanni lu ama am solo loo xam ne bu génnee dina am solo mais les migrants euh, numéro un bi moo nekk nii kon ngeen bàyyi ko xel bu baax liggéey boobu itam bu am solo la boo xam ne mënees naa wax ni kër sëñ Massamba Kanni mën na ci gis boppam bu baax a baax kon daal sëñ bi bu fekkente ne euh, ëppalu ma wala ma li may wax maa ci maa ngi maa ngi jégglu bu fekkente ne am na lu ngeen ci war a yokk itam wala lu ngeen ci war a jubbanti itam ma bàyyi ngeen jubbanti ko di tuub bu baax tey jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dunya uxra wali tuuba bi salaam li jut bi awbatin ila daari salaam dunya uxra wali tuuba bi salaam hallahu jalla xadul wax wa samat ليس له من والد ولا ولد الله جل أخد وهو صمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول الغابد له ولرسله wal anbiyaay aska salaamay bilantiyaay wallahi lam yaat wallahi lam yaat wallahi lam yaat walay sa yaati xalqul kamis li saydu saddaati na ñëpp def nii nu màggal sayduna muhammad sayduna muhammad sayduna muhammad sayduna muhammad sayduna muhammad sayduna muhammad سيدنا سيد لي ساداتي جف بي قل مزل مناتي إني يديف جاهل خريب وإنك الفتى هو المجيب لم تعمر إلى دار السلام وبالفي ناس جميعا يا سلام لك تلالكت ويلا للفقير فاتولني يا خير مون يا خليل زولي إليك لا إله خيرك يا ربي فكن لي أبدا وفزني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا توبوا له بقل هو الله الأهد للآخر سورة من ذاك العدد توبوا له بدين الإسلام دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بأمري ذي الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلة المالك والجلة محمد قل البرايا جنتي نبينا صلى وسلم إلى علي بلالي وكل من تلا أدي برنتوا لا نيان sëriñ bi nee na day bàyyi ñaan gi sëriñ Fallou Mbacké moom El Hadj Bara fu waaye dekk rek amin amin amin amin wax leen na ko teewee déwén araayo leen wajaba abdul xaali xiramaya على عبادي مدى الأسمان وجب ابن الخالق رحمين على عبادي مدى الأسمان الحمد لله بشير بي جميع العالمين خير سيدنا محمد ذي الخضر وآله وسلمه وبعد فللالي ابن أمار الأغدر داغ فؤادي لأجل سنبي سنوبة ربي أسلي أموري كل أيام وشدني علما ولن داء إلي خذني منى الجارية سبيا يا زيد يا مالك يا خالقي يا آبه يا منعمي يا رازقي إني إذا خفتم بكم ألاس كما بكم من الأداس لا تدردني